noonu ah mm-hmm. daal di ñëw nag ci dama la doon andi prétexte euh, c'est parce que on n'a pas dialogué si on avait dialogué on n'allait pas trouver tous ces problèmes léegi ñu ñëw ci dialogue bi dañuy ñëw ci dialogue bi waxtaanee dialogue bi parce que dialogue bi ji euh, pëccxoo bi bëri na te Kajoor yaakaar naa ni pëccxoo bi euh, bi dialogue bi jógee ci la cuuraayu seytaane bi daal cuuraayu seytaane bi moo <laughs> alors <laughs> waa waa waa République des valeurs lan mooy seen position par rapport au dialogue bi nga xamante ni président la lancé na ko. non c'est c'est une farce une farce c'est encore une astuce de Macky Sall pour essayer de réduire l'opposition à sa plus simple expression parce que Macky c'est un coutumier des chaque fois qu'il est dans une situation impossible face au face au créer benn semblant de dialogue pour essayer donc de passer loolu élément de langage vous devez être objectif parce que euh, moi je pense que xam loolu ah. xam nga donc li ma wax man bokk ñun au niveau de la développé a fait un communiqué. boo xam ne vous pouvez voir le journal le 5 dañ ko pare donc c'est pour vous dire que ñun. nous ne sommes pas partants à ce à parce que tout simplement ñun jàpp nañ ne Macky Sall dafa jeexal aujourd'hui il faut que nous ayons des garanties par rapport à sa candidature. éventuelle parce que ñun fu nekk nii ñun dañu jàpp ne que booy dialoguer da ngay dialoguer koo xam ne vraiment il est requis pour pouvoir parce que ñaata yoon la fi dialogue am ñaata yoon lañ def ay dialogue te parrainage bi ci ay semblant de dialogue doon si la ñu woon des gars ñu naan dañuy dialoguer créer fii parrainage bi en violation des textes de la CEDEAO yow dañ ko interdire te lan bëgg il est dans une situation tellement compliquée léegi day woote gars yi pour jéem a légitimer une éventuelle troisième candidature ñun nous ne va pas nous servir de faire valoir. non non yéen xamoo leen dialogue bi lan moo fay. non ñun parce je pense que loolu aussi c'est un problème président woo leen dialogue ngeen ne dafa bëgg a légitimer troisième candidat mais dialogue bi li fay am mënoo leen ko xam tant que demoo leen fa dañu ne balaa ñuy dem dañoo poser ay conditions d'abord il faut que nous ayons la garantie que Macky Sall ne va pas se présenter à une troisième candidature loolu c'est net ñun il faut ñu ay assurance ay garantie. c'est la seule condition que vous avez. non mais c'est non bés bu ñu Macky Sall rassuré ne il va pas se présenter mais on va. d'accord d'accord mais c'est clair et net.